Thank you. altine juróom-ñaari fan ci weeru juillet atum 2014 mbokk yi teewlu télévision Futur Média bisimila ci xibaaru digg bëccëg bi ak ponk yi ci gën a fës Mohamed Boun Abdallah Dionne moom nag euh, moo nekk kon jëwrin ju bees ñu tabb fii ci Sénégal njiital jëwrin yi Sénégal nag euh, toog ñaari fan yu mu amul njiital jëwrin mujj nañu ko xam moom moomee moo utu Aminata Touré Aminata Touré mi defoon euh, ci bopp gouvernement bi lu toll ci fukki weer kii nag di jëwrin jiñ tabb bees njiital jawri ni am na ay kàddu yu mu yëkkati bokk na ci wàllu xëy mi wàllu mbay mi ak plan Sénégal émergent ñu tëral ko ci wàllu yokkute yooye bokk na eh, ci mbëbëtam mu war cee taxaw nag ngir yokkute am eh, ci gàttal fanweeri jëwrin ñaar fukki fukki jëwrin ak benn kon ñoom nag ñoo daal di dugg ci gouvernement bi juróom-ñaari jëwrin daal ci eh, jóge am na ci nag ay secrétaire d'état yoo xamante ne ñoom it tàbb nañu lu leen bees ci gouvernement bu bees bi loolu yëpp nag daañu ko gën a yaatal sunu ganu tey gi Euh, Ibrahima Sène la bu PIT moom nag euh, laaj ak tontu dina dox suñu diggante ak moom mu wax ñi nag naka la gisee euh, gouvernement bu bees bi ak ci diirug ñaari at rek gis nañ ni kii di Macky Sall tabb na lu gàtt gàtt ñetti jëwriñ waaye tamit ñetti directeur de cabinet mbokk yeeg xarit yi ñi seetaan lii mooy ponk bi gën a fës ci xibaar yi yaatal gi nes tuut lay doon. Euh, jàngeen jëf euh, ci ànd beeg télévision Futur Média ni ñu ko waxee ci ponk xibaar yi euh, kon Sénégal doon xaar kan moo fas yéene doon njiitu jëriñ bu bees loolee tabb nañu ko loolu nag ni kii kon démb lañu ko fésal muy jëriñ ju bees yi nga xamante ni moom moo utu kii di Aminata Touré lu toll nag kon ci fanweer ak ñett ci jëriñ moom la ñu tabb bees ñoom nag ñoow daal di jiite kon gouvernement bi am na ci ñu génn waaye tamit am na ci ñoo xamante ni ba léegi ñi ngi seen i poste su ñooñee des nag jàpp nañ ni mooy ñi nga xamante ni ñoom nag ñoo jël raw gàddu gi euh, ci woteeg gox goxaan yi ñu doon euh, amal ci seen gox yi ñoo fa raw loolu nag moo wane daal gouvernement bu bees bi nga xamante ni tëral nañu ko Adia Talla ci leexal ginnaaw Mimi Touré Abdoulatif kuli Anta Sarr Benoît Sambou Ali Haïdar Thierno Alassane Sall ak Mor Ngom bokk nañu si ñu ñu tëbal ci seeni poste ministre ndax li ñu laaj ci woote gox goxaan yi Abdoulaye Diouf Sarr Mansour Faye Moustapha Diop bokk ci ñu dugg ci gouvernement bu bees bi ndax rekk seeni résultat ci wote yooyu ma may Niang muy bën waa Sambou ndax li mu doon ŋàññ doxalinu Mimi Touré bay laaj rekk ñu dindi poste bi ci gouvernement bi ya ko waral bi jafe-jafe yi doore diggante jiitu réew mi ak premier ministre am laata Youssou Touré mi ñu tàbb secrétaire d'État ci wàllu alphabétisation di ko feelu Mouhamadou Mokhtar sise moom mi dañ daal di ko yokkal darajaam ci wàllu raaya moom mi wuutu Abdou Aziz Tall ci poste directeur cabinet njiitu réew mi Abdou Aziz Tall ji daal di ko jox li denkoon premier ministre bu bees bi Viviane Bampasi nekk gouverneur bu jigéen bu njëkk ci Sénégal moom dañ ko daal di ko yokkal léegi jox ko ministère bi yor wàllu fonction publique ci yeneen département yi daanaka amul benn coppite rawatina ci ministère de souveraineté yi voilà ni ma ko waxee woon kon ci ponk xibaar yi suñu gan gi Ibrahima Sène la bu PIT Ibrahima Sène maa ngi lay nuyu. Uh, kon euh, yaakaar naa leex na ñu ngi ko doon xaar muy jëwriñ bu bees euh, fii ci Sénégal di njiital jëwriñ yi loolee mujj na antu euh, ñu ngi ko xam nag ni kii démb nan nga gisee li nga xamante ni moom la ñu amal remaniement bi Sénégal toog ñaari fan yoo xamante ne nii amul njiitu jëwriñ jàngat bu njëkk bi. waaw jàngat mooy ah, ñun ñëpp nekk yaakaaroon ni euh, bi Macky eh, génnee Mimi Touré amoon na ci xelam déjà nit ak équipe bu buy ñëw ñu yaakaaroon nañ ko moo tax eh, ñu ñu jaaxle duñ toogee lu mat. Euh, ñaari fan fan dégguñu dara. Euh, te boo gisee même gouvernement bi ni mu tëdde dafa mel ni changé wul Mimi Touré moo dem. ak quelques ministres mais gouvernement bi na mu tëddee woon noonu la tëddee ba léegi. Mimi turee moo dem lan nga yaakaar ni moom moo waral euh, limogeage Mimi Touré. ba li li ko waral moom xam naa ni ku ko seetlu bu baax xam ni du du li mu ñàkk élection yi moo tax ndax euh, bien avant élection yi am euh, amoon na conseil des ministres décentralisé bu amoon Kédougou ay kaddu jub yu mag yëkkate woon jëmale ko ci gouvernement bi di di ñaawlu seen ñàkk xariñ ak seen ñàkk seen ñàkk man-man loolu bu fekkee ni président mi ngi koy ñaawlu ci kanamu premier ministre te eh, bu boole ci ñëpp ni daal kontaanul. mooy liggéey bon loolu eh, wóor na ma ni Mimi booba eh, yëg na ni. Macky doyal na ci moom rax ci dolli ñu teg ci bés ay quelque bis rek ay kangam yu jóge Macky jóg ni voilà dañu wara a supprimer sax primature ndax primature doy wuñu ko dara loolu. mu dafay wane ni déjà dañ wane na nit ñi bo fexe nañu bëggoon nañu daal am bunt bu ñu ko fi jëlee maintenant élection yi bi mu ñëwee euh, Mimi ku xarañ la. gis na affaire yi ni mu tëdde xam naa mu ni ci xelam man daal duma nangu rek euh, ñu ñu ñu doxal ak man mel ni Kleenex buñ la soxlaa fompo la buñ la fompo ba pare sànni ci daal lay sànni moo tax moom aussi très tôt xalaatul ni euh, naa dem mais dafa mel ni daf leen bàyyi daal non dem day yomb parce que quand même euh, doo bokk ak ay nit sonn xeex liggéey ba tëll fii nga gis ni euh, seen diggante neexatoo rek nga ne da ngay dem déedéet moom kay ni mu defee noonu la dafa ne puisque affaire bi noonu la man dinaa fexe góorgóorlu ba am ndëgër laay ba même sama fi mag ki jëlee mais euh, du mën a euh, foog ni amul dootuma mën a tekki dara ci réew mi wax nga ko léegi euh, nekkul ni local yi moo tax euh, ci sa gis-gis ñu jëlee ko fii waaye booy xool du moom rek moo dem ndax am na ñeneen ñoo xamante ne aussi dem nañu. ñoo xam ni sax local yi taxul ñu dem par exemple euh, ministre de la culture moom nekkuloon candidat fenn kooku lu tax mu dem kon bokk ku seet mbir yi xam ni ñàkk élection ñàkk élection taxul mi mi dem. Euh, moom soxla woon noonu ko fee jële te li tax ñu soxla ko fee jëlee peut-être ñaari yëf euh, moo ci nekk benn bi mooy euh, ci entourage yu mag yi am na ñu gis taxawaayu Mimi taxawaay boo xam ne ñoom neexu leen ñu yaakaar ni Mimi dañu koy wax dame de fer muy musóoru di takk ndigg ñoom ñu ragal ni kii bu fi mag ki bàyyee bu yàggee Eh, dana ko jéem a dëkk. kon prétexte la local yi. mën nañu wax ni prétexte la mais am na beneen affaire boo xam ni. am na ci biir mooy programme bi mu jëlee Paris le programme euh, Sénégal émergent boobu am na ay conditionnalité am na ay euh, euh, règle yoo xam ni dana ko laaj pour mu doxal ko règle yooyu pour mu doxal ko dana jafe trop Sénégal ndax mi ngi jëm ci syndicat yi mi ngi jëm ci. suuf si ak mbay mi eh, te loolu eh, syndicalistes yi ak baykat yi mais doon nar a jàkkaarloog moom mais bailleurs de fonds yi jël boobu programme taxawal boobu programme eh, ñoom toujours li ñuy faral di soxla mooy am président boo xam ni dañuy xam ni président fort xam ni moom lu mu wax rek ci saa si ñu dogal ko kon bokk ñu delluwaat def régime présidentiel sans premier ministre ñoom loo ñoom la ñu faral loolu la faral bëgg. sànq dégg naa ci sa kàddu lu lu mu bëgg nga dellusiwaat si nee nga mi Touré euh, mi ngi doon am benn benn pointure boo xamante ni mi ngi ko doon teg comme par exemple ñu xalaat ni euh, war na mën a wuutu ki nga xamante ni moom mooy est-ce que loolu aussi du renvoyer toujours li ñuy faral di di wax naan structuration dafa war a am ci parti. non non boo amoon structuration ma PDS amoon structuration non mm-hmm. euh, ci waa kër Ablaye Wade bi ñu yaakaaree ni Idriss Seck ci tànku góor gi la nekk danoo fexe euh, ba mu tàggoog moom euh, PDS am na structuration Macky bi waa kër Ablaye Wade yaakaaree ni fexe nañ ba mu tàggoog moom maintenant problème bi ci nekk mooy euh, man wax dëgg yàlla gisuma woon ci taxawaayu Mimi lu ko lu xel lu ma mënoon ñaawal xel mais entourage ba. ñi taxoon ñu jóg toppoon nañ supprimer primature euh, non seulement loolu muy wan seen xel mais aussi pour permettre ñu dellu régime présidentiel boo xam ni dañuy wax ni président fort lu ñu bëgg président boo xam ni lu mu lu mu joxoon mu dagg or démocratie du loolu démocratie du da nga fal président lu ko neex sa réew mu def déedéet lu jaadu la lay def waaye bu dee rek man luy sama coobare lu ma neex naa ko def loolu taxul kenn fal président ñu desaat ba tey ci logique ñi nga xamante ni ñii dañu dem ni ma ko waxee léegi euh, gouvernement bu bees bi ñii dem nañu ñii des nañu waaye bu ñu seetloo ñu dem tey ñëpp ñëpp daanaka mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñàkk ci seen localité est-ce que loolu aussi di wane ni Macky Sall la mu waxoon te njëlbeen képp ku ñàkk ci sa gox dinaa tàggook yow. waaw gis nga euh, euh, yemul foofu sax ndax Macky dafa waxoon ni ku fexe ba ñu ñàkk ku fexe ba ñu ñàkk. dañu tàggoog yow Macky 2012 am na ndam ci biir élection yi am na ñu bari ci Macky 2012 am mais Macky woowu leen ndax ñoom seen candidature dafa bokk ci li tax euh, nitu Macky yi gagné wuñu kon boog non seulement waa APR yi doon dëgër bopp di dëkku toppoo ñoom ñooma ñooma euh, fa euh, seen candidature ak seen taxawaay tax ba ñu perte ci gox yu bari c' est la même chose ak Macky 2012 Macky 2012 moom am na gox yu nu gagné ku ne xam ne de Adama Sall gagné na gox yu dul jeex du xaj mais taxul ñu oo ko ci gouvernement bi ñoom itam Macky daf leen sanctionné sanctionné ñëpp ñoo xam ni dañu liggéey pour mu ñàkk te eh, loolu évidemment day néewal doole parti am loolu moo tax mu dellu si wat gën a taxawaat ci Benno Siggil Sénégal ndax du Benno Bokk Yaakaar ndax boo gisee gouvernement bi eh, coalition Benno Bokk Yaakaar ni nga kon gouvernement bi moo moo dellusiwaat. moo dellusiwaat mu mel euh, ni kon ni nga ko waxee woon dafa sanctionné waaye am na jàpp nañ tamit euh, d'autre part ne da promotion am na am na ñoo xamante ni xëy na seen biir baaxee na ci. waaw non kooku promotion ci biir PDS la ci biir APR la waa APR foofu la seen la promotion interne am. amul ku nekkoon euh, société civile ak yooyu ñu jugal la déedéet ci biir promotion euh, waa dafa génne waa APR dugal waa APR euh, yaaxam mbay mi dugg parti socialiste la parti socialiste lu tax Yakham mën a dugg lii Macky dellu si waat jàpp ci Benno Bokk Yaakaar te ci Benno Bokk Yaakaar Benno ak Tanor ñetti ministre la woon amoon puisque Aïdar dem na xaw ma tax mu dem moo tax ñu bàyyi eh, Macky bàyyi PS amaat beneen ministre muy eh, muy yaa xam. waaye dafa mel ni itam sanction bi du du du ñëpp la laal ndax am na ñoo xamante ni perdre nañu seen gox tey euh, teewul ñu ngi des ci gouvernement bi. mais non ñan par exemple. par exemple bu ma jëlee parti socialiste. mais no non parti socialiste encore une fois euh, du parti boo xam dafa dépendre ci volonté Macky Macky digganteem ak parti socialiste mooy benn ak Tanor. voilà ak Benno ak euh, ak Benno Siggil Sénégal euh, ay ay ay ay moo leen jàpp kon bokk bu fekkee ni eh, Macky tàggoowul ak parti socialiste mais ñi neex parti socialiste ñooy ñëw ci gouvernement bi te Aminata Mbengue Ndiaye euh, Tanor moo proposé woon mu nekk ci moo ci nekk ba léegi bu fekkoon nag ni Macky dafa non non du fi dugg mais kon digganteem ak PS day yàqu. te loolu nag. la Macky gis ni eh, moom bi ñu dem ci campagne bi bi def ay liste digganteem ak euh, Benno ak tanoor ak Benno Siggil Sénégal ba mu des AFP mais Benno Siggil Sénégal ba mu des AFP digganteem ak ñooñu ñëpp yàqu na léegi nag dafa defaraat bi mu jógee xam ni li mu doon wut amu ko mu dellu fa mu nekkoon. laata ñuy jàll ci beneen élément bi euh, moom da doon wax ci njëlbeen bi muy surtout bi muy def campagne am da doon wax gouvernement sobre euh, mi ngi doon wax euh, gouvernement de vingt cinq ministres ñaar fukki jëwriñ ak juróom tey ñu ngi ci fanweeri jëwriñ ak ñett est-ce que tey mën nañu wax vraiment gouvernement sobre bi mu doon wootee. yow da yow da nga ne fanweeri jëwriñ ak ñett moo yokk ci ñe juróomi. secrétaire d'État absolument bu ay jëwriñ la ñu. waaw mënoon wax rek protocolairement du nu ministre mais ay jëwriñ lanu ñu. ba kay matul sax di di werante li mu waxoon ak li mu def du benn te boo gisee eh, gouvernement bi fi jóge ñi ci ëpp dellusiwaat nañu kon boog la mu waxoon Tamba ku ko seetaat Mimi Touré mu Mimi Touré taxoon muy wax mais du du gouvernement bi. parce que fekkoon ni. la mu waxoon tàmbali la mu waxoon toppal ni ñii xëy ñun liggéeyuñu. ah Kédougou ba ba ba mu naqari ko bu fekkoon ne loolu ci ci ministre yi jëm kon da leen dégagé mais li mu li li wóor ba wóor mooy wax jooju mimi moo ko moomoon moo tax dégagé na ko te mimi xamoon na ni wax ji moo ko moom moo tax mu préparé. mu préparé wu kon ñu daal di euh, wax nag ci ki nga xamante ni moom la ñu tabb bees muy njiitu jëwriñ yi waxoon naa ko léegi Mohamed euh, Dione la moom la ñu tabb jëwriñ ju bees fii si Sénégal jiitu jëwriñ yi moom nag mën nga fekk baax ca Gossas fa juddoo ay atam toll ci juróom fukk ak juróom nekk na nag koo xamante ne jàpp nañ ni liggéeykat la waaye tamit euh, ku yàgg a jege Macky Sall ndax moom moo nekkoon directeur de cabinet jamono yi muy nekk njiitu jëwriñ fii ci Sénégal ak jamono yi muy nekk président bu assemblée nationale boobu ba léegi tamit euh, moom la ñu dénkoon lépp lu jëm ci plan bi ñu tëral ci wàllu yokkute euh, Chérif Dia moo ñu gën a xam leeg moom. président de la république son excellence Macky Sall def ñu nag boo name ñu jox ñu benn message message bi ci tubaab ñu ngi koy wax au travail maanaam liggéey leen jox leen liggéey bi ñuy name ndombol tànk yii mu ñu jox pour liggéey leen liggéey pour suñu askan. lu ko jëmale kanam ñu liggéey bon pour li nga xam ne moom lañuy ñuy wax vision mooy gis-gisam ci nga xam ne bi ñu ko dénkee réew mi ba léegi loolu mooy gis-gisam ci li yokk réew mi nga xam ne moom la tuddee PSE mu nekk ci kaw suuf loo xam ne pour sénégalais yi maanaam yokkute wante dafa bëgg mu ne yokkute boobu ah yem mu mu nekk loo xam ne ñépp lay laal te ñun it ñu teg ko ci yoon loolu c'est important comme message bu ñu jox mu ne ñu it nañu liggéey pour yéene bi mu am ci mbay mi nga xam ne mooy secteur prioritaire bi nga xam ne moom la tànn ndax sénégalais yi dañuy yëngatu ci mbay pour que gouvernement bi yépp takk liggéey ci wetam ba programme bi nga xam ne moom la am pour ci mbiri ceeb ci mbiru gerte ci mbir gis ngeen ko bërki démb ci ci oño bi ci mbiru léjum loolu yépp nekk source koom-koom pour ñi nga xam ne suñu mbokk yi nga xam ne ñoo ngi yëngatu ci mbay nañu it dama bëgg ngeen liggéey ndax dama bëgg li nga xam ne mooy rénovation urbaine ñépp gis nañ ko bërki démb jam ñaaju mooy li nga xam ne sénégalais yi moom la ñu bëgg ci seeni dëkk moo xam ne mu nekk dëkkuwaay bu décent ba nga xam ne ku liggéey wàcc ñibbi sa kër incha allah nga mën a nekk ak sa njaboot ci condition yu baax nee na nañ ci liggéey def ci suñu akulaay talaa mu ne ñu it na ngeen liggéey pour liggéey xale yi am liggéey xale yu góor yi yu jigéen yi loolu xalaat nañ ci ay pexe ci direction incha allah dinañ ci def suñu doole ak suñu xel mu ne ñun nañu liggéey enfin pour que li nga xam ne moom la xalaat ci mbiri sécurité ak jàmm ci réew mi te ñoo ngi sàkku ñaan ci kilifa diine yépp muy Touba di Tiwaawan di Laayeen yi di ñépp fàttewuñu kenn di labbe bi moom ñoo ngi sàkku ñaan pour mission bi oyof ci ñun ba liggéey boobu nga xam ne moom la ñu président sant ñu ne gouvernement bi incha allah sénégalais yi tekki seen bët sénégalais yi am ci yokkute ak jàmm wasalaam. Mouhamed Boun Abdallah Dionne ni ko waxee mooy njiitu jëwriñ yu bees euh, fii ci senegal euh, dégg nga ko léegi ci euh, ci kàddoom liggéey. liggéey dafa mel ni à chaque fois moom lañuy faral di dégg ci seen discours ñoom njiitu jëwriñ yi liggéey liggéey léegi ñu bëggoon xam discours boobu lan lay wane ndax liggéey bi dafa des. mais bu liggéey bi desul woon kay coow du bari. mais euh, li ci nekk mooy man dégg naa ko bu baax euh, xaw ma ko personnellement mais li dégg li ma dégg ci moom euh, lu mel noonu lan déggoon ci Mimi Touré mi ñëw itam ñëpp. dafa liggéeykat la liggéeykat la dafa jóge président wax wax wax mais wax ak jëf du benn maintenant man wóor na ma ni élection yi ñu jóge ak gouvernement bu bees bii avec le nouveau premier ministre. ñu ngi nekk hérité nañu situation boo xam ni situation bu métti la parce que euh, pour la première fois ci Sénégal euh, le parti du président la République ñàkk le contrôle politique de la Casamance toute la région de Casamance est perdue par le euh, euh le parti du président son contrôle et aussi c'est la première fois Euh, le parti du président perde le contrôle de Mbacké de Mbacké du départ bon donc situation bu difficile la moom premier ministre maa ngi koy ñaanal pour que mu am xereñ ak dal pour que euh, li tax ñooñu fippu sanctionner euh, parti président na am xereñ ak dal ak yàlla ubbil ko xel pour loolu bu man ko faj parce que euh, bu nu bëggee jàmm ci ci Sénégal bëgg jàmm ci Casamance ak ci Sénégal yëpp. sanction bi aussi jàpp nga ni euh, ci sa gis-gis c'est en fonction des résultats. non man parce que résultats yi kenn discuté wu ci durant toute la campagne. da kenn ku discuté résultat ñi ñu sanctionné. mooy nit ñi nga xam ni moom la président bëggoon teg ci gox goxaan yi pour mu nekkal leen fa te eh, li si li ko gën a firndeel mooy euh, Dakar euh, jóg ni ñi gagné dakaar Dakar 2009 te di bokk ak moom ci coalition nan fa jógee ma teg fa samay nit mais loolu kenn mënu ko woon dégg ñoo la ñu sanctionné te li tax président Macky euh, jël boobu taxawaay ay ñoñoom ñoo ko ni bu bëggee gagné daal. sooy boo wax ko xaan yi nga nangu ko gagné fépp teg fa say nit pour que 2017 nga mën a jekku mën a dem ba mu gëm ko ba mu ko ba mu jaral ko euh, même euh, wax waa parti attention euh, ku bëgg te gën a conserver sa place place yi ma la jox na nga gagné sa sa gox xamal nga da leen di ñaax pour ñu def lu ne pour gagné. mais loolu taxul nit ñi topp leen. bu nekkee am na aussi ndam ni ko waxee ci ci ci ci wote gox goxaan yi mënuñu wax que c'est une victoire écrasante est-ce que tey jii euh, fi mu toll parti au pouvoir bi ndax amul tiitaange ci wote wote yi nga xamante ni moom la ñu dëgmal ëllëg. non gis gis nga ñëpp am tiitaange gis nga du du PDS du PS du réew du kenn parti socialiste situation bi mu nekk moo gën a jafe ci àddina. ndax nga pat la boo xam ni dañ doon xëccoo direction bi du dëgg def congrès rapidement mais jëwrin yi taxaw ñooñu te ku ci nekk yaakaar bëgg a nekk candidat problème la parti bi bu Ousmane Tanor xërañul ba xam nu muy fexe ba kàngam yooyu mën a ànd préserer parti bi parti bi ëllëgam kenn du xam nu muy mujj kon ba kenn parewu la bu kenn yaakaar ni ku nekk pare na loolu moo tax ma ma si sama xel mu gàtt moo tax ma lii ni Macky defee ni mu réagir eh, ñi mu àndaloon benn bokk yaakaar mu téyewaat leen ci gouvernement bi kooku réaction salutaire la ndax partiam eh, ñàkk na doole eh, Macky 2012 mi àndoon ak moom jubatunu kon bokk bu tasee benn bokk yaakaar na ko ñoom bëggee nan ko bëggee woon ñoom bu ko tasee kon dootul mën yor yor réew mi loolu moo tax mu dellu si waat nooyaat. parti yooyu PIT ci la bokk. PIT LD euh, le parti socialiste euh, moo AFP amu ci problème ndax AFP ñaas ni mu doxalee ko ne gis na ko ba tax na sax euh, ñu ci bari ñi bokk ci AFP. seen xel kon daal yeneen parti ñoo am ñoo am problème mais pas AFP ni nga ko waxee. non AFP am na problème bu dul jeex du xaaj. ndax. c'est par rapport ak euh, coalition bi. rapport ak ñas ni mu doxalee. parce que euh, Malick Gakou ku ne xam ne amoon na chance pour gagner euh, ki mbay de de Pikine de Pikine le maire sortant de Pikine. Mhm. amoon na chance pour gagner ndax liggéey na comme Khalifa ni mu liggéey mais ñu bari doonu ñaaw njort ni ñas moo leen wax ni bàyyi leen ndax. ñu ñu xajal place ñii loolu nag am nañu mu neexul ci biir ci biir PDS ci biir ci biir AFP te ñun ñu bokk ak AFP Benno Siggil Sénégal neexuñu ndax ñoo ànd bokk ba liggéey ba ni moom mu jóg jël décision boppam pour xajal te loolu ñun ñëpp dañu waxoon ni loolu du fi am. ñu kon bokk euh, boo seetee. Mhm. Eh, benn benn parti. mënul wax ni bu ma jógee ci élection yi eh, am naa euh, gën naa am chance pour gagner deux mille élection présidentielle yi ñëw même PDS Ablaye Wade dégg nga ko mu ngang ci résultat yi ba léegi dafa jommi total ndax li mu yaakaaroon amul li ko gën a jommal sax mooy bi muy dem euh, Podor pour supporter Aïssata Tall Sall ay cadre am cadre PDS yu bokk ak euh, Racine ñoo mobiliser seeni troupes pour empêché wadd mu ñëw Podor bon gendarme moo ci mujj rax pour tas leen pour Ablaye Wade mën a dugg loolu mosul am ci ci biir PDS. kon bokk nan seetaat mbir yi li nuy wax euh, carte gi dana koy baataraat loolu foo ci nekk. ñu rebondiraat tuuti ci ci ci ci seen euh, waxu kàddu jiitu jëriñ yi ku ci ñëw ak euh, ni ngay ñëwee waaye kàddu gi benn la liggéey liggéey nga yaakaar ni liggéey boobu euh, ci ñoom ñooñee la war a njëkkee ndax souvent aussi dañuy dañuy wax dañuy ñaax askan wi ñuy liggéey ndax liggéey boobu du ci ñoom la war a dooree. mais évidemment évidemment waaye gouvernement boo ko tegee liggéey rek la mën a wax mënul wax ne bu leen liggéey bu leen liggéey. kon moo tax ma ni kooku du programme du feuille de route feuille de route liggéey liggéey non non euh, Ablaye Wade da doon wax. il faut travailler encore travailler travailler lu mujj du loolu wax ji mooy am na Sénégal toll na foo xam ni eh, wax kese du ko doxal bon nee nañu ba liggéeykat la looloon wax ci mimi gis na fu mujj moom sax da waxoon day accéléré ba ma koy tooñ ne ko voilà dafa accéléré. Euh, ba luppee virage bi virage élection ba mujj xalaangoo ci biir ci ci ci biir <laughs> euh, euh, géewu politique bi kon boog accéléré ba raté virage ba xalaangoo ci biir loolu moo ko mujj dal daal dama ko doon tooñ ci loolu rek mais lenn ma ci nekk liggéey gouvernement bu ne la war jóg toppoo nag dan ni ma accaleen ñu liggéey kooku du programme du programme. wax nga ko sànq que dinañ ci delluwaat parce que am na solo que euh, pré du du maanaam euh, li nga xamante ni moom la moo tax ñu jëlee ko fi euh, du question que dafa perdre local bi local yi moom mooy prétexte bi donc mën nañ ne genre crise la bu yàgg maa ngi lay lire ci l'observateur ngay wax que par exemple li nga xamante ni moom mooy crise actuelle bi nga xamante ni moom moo xew nekk na crise boo xamante ne daal daanaka fajul dara ci gouvernement bi ndax wax nga ko sax que le gouvernement actuel n'a pas atteint ses Euh, kon dafa a atteint plutôt ses limites sociales lan nga bëgg wax foofu. non waxuma le gouvernement actuel j'ai dit la coalition Benno euh, euh, non je veux le régime. Mm-hmm. le régime. le régime présidentiel le régime la. Mm-hmm. dama ni dafa atteindre sa limite. a ah, atteint ses ah, li ko war mooy lan. Euh, dafa c'est que mënatul fonctionner normalement parce que soo Abdou Diouf fonctionné na. ba Abdou Diouf changé régime bi def régime euh, présidentiel programme d'ajustement structurel yi ñoo ñëw bailleurs de fonds yi ni ko jëlal affaire yi sa loxo moo tax mu def ko euh, euh, régime présidentiel déconcentré li tax mu atteindre ay limitam ci Abdoulaye Wade la commencé ndax normalement crise diggante président ak premier ministre ci régime boobu warul am or crise bi de crise artificielle la. waaw foofu la commencé ndax. foofu aussi gis nañu ci ci ci ci douze ans si premier ministre. crise artificielle la ndax ci entourage du président la ñu ni créer artificiellement des contradictions entre le premier ministre et le président or président moom dafa yaakaar ni moom mooy ndey mbili ji lu ko neex def lu ko naqari mu. Euh, maanaam kuy buum di buum loolu moo tax euh, euh, régime bi mënatul dem. Macky ku ne xam na ni eh, yorul jikko président mais eh, eh, jikko nit ñi mu àndal te nga xam ni ñoo bokkoon nekk ci biir PDS jikko boobu yëpp ñu ngi ci jikko yooyu tax na ba régime présidentiel déconcentré. am ay jafe-jafe atteindre na limite sociale am li ci nekk mooy. Mhm. Euh, dañu war a euh, génne ci ci régime boobu euh, ponk yi nga xam ni mooy tax. mënul dox. ponk yooyu xam naa dinañ ko yaatal beneen yoon lay doon ndax waxtu bi moo ñu xoj ñu di ko jaajëfal bu baax euh, moom Ibrahima Sène bu te parti pour l'indépendance et le travail euh, fii ci Sénégal ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax laata ñuy euh, tàggatook yéen ñu gën leen xam xamleel ki nga xamante ni moom mooy njiitu jëw jëwri ni ñu tabb ko bees muy Mohamed John moom nag la ñu daal di tabb bees kon ma nga fekk baax ca Gossas fa la juddoo mi ngi toll ci juróom fukki at ak mu nekk nag koo xamante waaye tamit ku jege woon euh, Macky Sall ndax euh, jamono yi muy nekk njiitu jëwriñ fii ci Sénégal moom moo nekkoon directeur de cabinet waaye tamit euh, moom moo yoroon ba fii ñuy wax ak yéen lii di plan Sénégal émergent ñu tëral ko ci wàllu yokkute Chérif Dia lañ ci àndal. ay nit ñu bëri rafetlu tab gin tabb kii di Mohamed Boun Abdallah Dionne mu nekk premier ministre bu Sénégal li ko waral nag mooy jaar-jaaram ba tax na muy homme politique ak sénégalais yi daal di koy rafetlu. moom nag laata muy nekk fii nommé nan ko mu daal di jiite bureau opérationnel suivi plan Sénégal émergent di BOS moom ñu ngi ko jokkale woon directement ci président Macky Sall moom moomu sax moom moo nekkoon directeur cabinet Macky Sall bi kii nekkee premier ministre ak président de l'Assemblée nationale nekk informaticien de formation judo Gossas liggéeyee ci banque centrale des états de l'Afrique de l'Ouest ak société bii di IBM moom bi mu fi nekkee directeur de l'industrie suqali na secteur bi di secteur industriel daal fi samp sax ay sociétés yu bëri Mouhamed Dionne daal di wuutu ki nga xamante ni moom mooy Aminata Touré jot naa liggéeyee ci wàllu diplomatie ndax nekkoon na fi chef bureau économique bu ambassade Sénégal nekk ca Paris laataa nag muy waat fii ci Sénégal moom nekkoon na fi fonctionnaire international ndax jot naa liggéey ci conférence des nations unies sur le commerce et le développement du CNUCED nekk ca Maghreb laata muy dem tamit ca ONUD di organisation des nations unies pour le développement industriel premier ministre bu bees bi nag mag la ci député bi di Cheikh Diop Dione moom nag dundam am na lu ko ci metti ndax ñu ko gën a jege ci njabootam jot nañoo faatu ci accident doon ñibbi ca Gossas muy loo xamante du ko mës a fàtte fa sama ay waajur tëdd ca Touba ma am xalaat tey pour ñoom di ñaan suñu borom baal leen te dugal leen biir àjjana ñu di ko jaajëfal bu baax euh, Chérif Dia kon ñoo ko gisandoo noonu muy Mohamed Boun Abdallah Dionne moom mooy njiitu jëriñ bu bees euh, fii ci Sénégal ñu tabb ko moo utu Aminata Touré ci bopp gouvernement bi bokkee xarit yi fii la ñuy tàggatoo ak yéen euh, di leen jox dig daje 19h ak 20 ak yeneen jotaay xibaar jaa ngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias